ayca bàkk ba jib na générique ba départ na wasaara làmb tàmbale na ak bàyyi jii li ñu leen di siyaar képp koo xamante ne yaa ngi ci réew mi moo xam bitim réew ak fu waaye mën a nekk rek ñu ngi lay jàpp suñu baaraam yi di la jox suñu loxo di la siyaar bu baax a baax a baax di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne moo am jéggal euh, yàlla nañu yàlla boole jéggal mbokk yi ni ñu leen koy defalee ci jàngat làmb saa su ne noonu la ñuy fas yéene waatee tey ji waxtaan ci làmb ci démb waxtaan nañ ci promoteurs yi ak euh, ñëpp ñi nga xamante ni dañoo bokk ci ñuy defar làmb tey ñu bëgg a waxtaanee kenn koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb bi muy ñëw am na lu mu fekk ci làmb da ko donn ci deret ji la nekk waaye am na leneen loo xamante ni wane na ko ci làmb ñi fi të gëj a daanu kenn mosu leen a daan bokk na ci leen déggloo muñal kooku ñuy waxtaanee tey mooy euh, Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 l'ancien roi des arènes tey moom lañ fas yéene waxtaanee def njàngat ci moom carrière Balla Gaye 2 fi mu commencé ba tey fi mu yem Balla Gaye 2 lan moo ko desee ci làmb tey mbokk yi loolu lañu bëgg a waxtaanee ndax boo xoolee euh, ab diir diggante bi Balla gay duggee euh, bëreek ay champion euh, bëreek nombre de combats yi mu bëree tey ñu tudd fi ñëpp day xaw a metti mais dinañ lim rek ñenn ñi nga xamante ni euh, jàpp nañ ni fi mu toll nii am nañ position bu baax ci làmb euh, te Balla Gaye 2 moo leen daan parce que Balla Gaye 2 na ki nga xamante ni mooy Papa Sow Balla Gaye 2 daan na ki nga xamante ni mooy Issa Pouye Balla Gaye 2 daan na ki nga xamante ni mooy Tapha Tine Balla Gaye 2 na ki nga xamante ni mooy Modou Lo deux fois mbokk yi Modou mi nga xamante ni musul dégg muñal Balla Gaye 2 daf ko daan deux fois défaite bi mu njëkk am ci làmb Balla gay 2 moo ci teg bi ko Balla daanee euh, ci méthode bi Balla toll ci làmb ci carrière bi Balla gay toll ci làmb mu daan ki nga xamante ni mooy Modou ñaari yoon jël bu njëkk ba ñu ci bari dañ doon wax ci làmb ni euh, xëy na expérience a tax mu daan Modou xëy na Modou dafa xamul fi muy taxaw ci làmb looloo tax bàll daan ko jamono di dem euh, ba ñu màgg ñoom ñaar ñëpp. ku ci nekk tey ñu jàpp ni fii lañ war a mën a yem Balla Gaye 2 daan kii nga xamante ni mooy Modou Lo deuxième fois mbokk yi balaa ñuy ñëwaat ci Modou boobu xoolal diggante mag Yaxya Jóob Yékini ki nga xamante ni onze ans daanuwul nga gis euh, bërëb bi mu bëreeg Yaxya Jóob Yékini euh, jël roi des arènes bi ci moom moom Balla nga xam ni naanaanu làmb la euh, balaa ñuy dugg ci Yaxya Jóob Yékini dugg ci ki nga xamante ni mooy Modou da ngay xool palmarèsu làmb ñu baree bare mosuñoo am defet Balla Gaye moo leen daan moment bi muy daan Coly jamono jooju Coly Faye amagul defet ci làmb Balla Gaye 2 moo ko jàpp bëre moom bëre bu rëy daan ko kon mu doon ndaanaan boo xamante ne kenn werantewul ndaanaanam ci làmb parce que boo xoolee fi mu dugg si ba muy bëreeg Issa Pouye seen combat bu njëkk ba stade Jom Iba Mar Issa Pouye daan ko bañ dajee stade Demba Diop daa fay jël revanche parce que rêve am mooy Issa yi daan na ko damay jël revanche daan Issa Pouye ñi ñu jàppoon ci làmb mën nañ koo téye Balla Gaye 2 da leen a daan boo xoolee bi muy jël Tapha di bëreek moom jàppoon nañ ni euh, doon na ko waa des arènes warul mën a laaleeg Tapha Tine wala bu jëleeg Tapha Tine mën na koo daan mu bëreek moom ak manière xeex ak moom jàpp ko daan ko tey ñuy gis ci làmb làmba ngi dem Balla Gaye 2 ngi dem ba mu am kii di Eumeu seen Eumeu seen daan ko bi muy nekk xale doon tollu ci digg dooleem moment bi ko Eumeu seen di daan jàppoon na ni ku mu jàpp ci làmb moo la mën ñu bëre ñoom ñaar Eumeu Sène daan ko mooy caxabal boobu nga xamante ne Eumeu Sène daanoon na ko Balla Gaye 2 mu doon defet boo xamante ni metti na ko trop ci làmb jamono di dem jamono di dem jamono di dem ba Eumeu seen mooy ko revanche ñu war a laalewaat une deuxième fois ñaareelu yoon boobu ñu daje ñoom ñaar Eumeu Sène delloo buum ca mboy mboy ga daanaat Balla Gaye deux deux fois Eumeu Sène mi ko daan deux fois boo xoolee Balla Gaye ci carrière làmbam li mu def yépp mennum Eumeu Sène moo doon ki nga xamante ni tey bokkute bokk na ci ñi gàkk gàkkal carrière am Bombardier daan na ko benn yoon Issa yi daan na ko benn yoon Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon loolu nag muy ñeent défaite yoo xamante ni Balla Gaye 2 am na ko ci làmb tey fi mu toll nii diggante ak Eumeu Sène nan lay demee soit Eumeu Sène daan na ko dootul bëreek moom wala Eumeu Sène dafay may revanche Balla Gaye 2 ngir ñu laalewaat parce que nag lépp loo mën a xam mooy Eumeu Sène lépp lu Balla Gaye bëgg mooy gàkk gàkk boobu dox te diggante ak Eumeu Sène mu raxas ko ba mu set. Bombardier am na combat digganteem ak Eumeu Sène est-ce que balaa muy mën a laaleeg Balla Gaye carrière làmbam du jeex parce que bomb euh, li ko dese ci làmb fi mu toll nii bareetul boo ne benn at doone ñaari at fi mu toll nii li ko dese ci carrière làmbam euh, bu dee seen g bi li ñu tegoon seen tànk ba tey ñu ngi fa bientôt Bombardier euh, bu bëree saison deux mille deux mille vingt et un Euh, est ce que deux mille vingt deux dina ko bëre saison deux mille vingt deux mille vingt xam naa ne incha allahu rabbi fa la carrière am nar a yem tey moog Balla Gaye 2 xam naa ni yaa njort naa ni euh, gëw ma ni dinañ laalewaat ci làmb te Balla fi mu toll nii Eumeu Sène daan na ko fan ba fan la jëm moom Balla Gaye 2 parce que lépp loo ko wax rek danaan roi des arènes bi mu perte te Bombardier jël ko ci loxoom fépp fu mu mën a nekk dina ko jëli roi des arènes bi actuellement mu ngi ci loxoy Modou Lo Modou Lo day bëriwaat ak Balla Gaye askan bi bëgg nañ ko wala Balla Gaye fan ngeen koy xaar ci làmb moo doon xale bi nga xamante ni champion la ci làmb donn na baayam doon ay rakkam donn nañ ko waaye donn na ay magam bëreeg papaam Moustapha Guèye ak Moustapha Guèye moment boobu fi mu toll ci làmb mu daan ko ba pare dafa amoon benn gëm-gëm boo xamante ni gisoon nañ ko ci moom Balla Gaye 2 mooy mbër boo xamante ni ku mu jàqaar loolu moo la mën loolu daf ko gëm te daf koy wane en chaque fois boo xoolee bis bi muy bëreek euh, ki nga xamante ni mooy Ousmane Diop xoolal bëre bi mu bëreeg Ousmane Diop Ousmane Diop la mag moo la jiitu ci làmb mën a bëri lool te kenn nataabalewul mën bëreem ci làmb nga bëreeg moom daan ko jël bu rëy boobu nga xamante ni mbër musu koo daan Ousmane Diop xoolal diggante mag baabooy numéro 2 mook Baboy. Euh, xoolal loolu bëre bi ñu bëre ñoom ñaar stade Demba Diop mu wan ni baabooy dama laa ragal bala booy baabooy topp ko mu génn saako yi ñëwaat duggaat ci digg géew mu bëreeg moom ak ni mu ko wëree ndomba ba daan ko moo lay wan ni doon na ndaanaan boo xamante ni kenn du ko natable ci làmb carrière làmbam lan moo ko dese Balla Gaye ñan la war a mën a bëreel fi mu toll nii actuellement parce que dafa am ñoo xamante ni ñu ngi ci kaw te ñooñu euh, fi mu toll nii ñooñu rek la mën di laaleel ku ci mel ne giri Bordeaux mi mu jël daje woon nañ dañuy dajawaat Modou Lo daje woon nañ dajawaat dañuy dajawaat Tapha Tine amel na ko revanche daje woon nañ dañuy dajawaat mm, euh, Bombardier njortu ma ni ñoom ñaar dinañ mën a daje parce que temps bi gaw ma ni dina ko may Eumeu am na lu mu wax te nee na moom li mu waxoon nitu kàddu la du mës a bëre Balla Gaye numéro 2 ñuy tuddee ko ni daf ko ragal ñuy tuddee ni daf koy daw ñuy tuddee ko daa am muy bañ waaye nit moom munoo bëre moom daan ko ñaari yoon ba pare ragal ko munta nekk xëy na nag loolu ay principe bu boppam la mu ne duma ma ki nga xamante ne mooy Balla Gaye 2 wolof nag daf ne pomme de terre moom a gënal pataas kuñ ci tëj sa avocat moo baaxul am nga droit tey nga yegg fi nga yegg ci làmb laaleeg nit ñaari yoon ne doo laale teg moom Yaxya Jóob Yékini def na ko fi bi muy bëreeg baaboo yi nee na ko bi mooy suñu ñaareelu daje euh, bu ma la daanee duñu duñu bërewaat wax na ko fi yeneen mbër loolu bokk na ci slogan boo xamante ne fekk nañ ko ci làmb te noonu la demee mbokk yi ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax tey Balla Gaye 2 lañ leen indiloon ci jàngat làmb Euh, di leen jaajëfal fépp fu waay mën a nekk euh, di leen gis nañ message yi gis nañ commentaire yi gis nañ jàpp bi ngeen jàpp ci liggéey bu rafet bi waaye xam nga rek ak wasaare làmb yéen a ma gën a xam daal di jaajëfal bu baax a baax a baax la cadreur des cadreurs su ma ko waxee mooy kàggu moom mi nga xamante ne sama xarit la macha allah liggéey bi rafet na di ko jëfal bu baax a baax a baax borom ñaari soxna yi mbokk yi di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb ak bàyyi ji li jërë ngeen jëf.